de pour suñu rakk yooyu. jërëjëf après ça li ma bëgg ñaan ñi fi teew ñëpp mooy ngeen tàccu seen bopp.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

boo ñëwee fii Casamance boo je viens de bayam Vous bu leen xeeb ce que vous avez fait ces dix derniers jours Amna na ñoo xam ne sax jàpp nañ ni lu ordinaire parce que c'est dans leur sang et dans leur ADN Non, la a yàlla bindee mais bu leen jàpp ni ce que vous avez fait c'était ordinaire

li ngeen gis démb te Sénégal yëpp ruus l'histoire retiendra que ci Macky Sall la amee fii ci Sénégal. naam sax bañu woon dem wuyu ji ndax sénégalais la citoyen la les conditions yi ma doon imposé pour ma wuyu ji yéen ñëpp ngeen gis ko ñuy toj sama oto di barricade sama kër di terroriser ma famille. dernière fois ma dem wuyu ji bi ma fa jógee hôpital laa dem directement.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 wala autres zones du Sénégal qui une woon fii ci leer bi. te li qui solo Moi, on a pu faire ça sans que cette fumisterie ne ñu pas. à chaque fois qu'il s'agit de la Casamance il a une rébellion wala yu ñàkk fayda yooyu de wax mais on a pu faire ce qu'on a fait te seen waxu publicité yooyu qui ci lopp Sénégalais parce que tous les Sénégalais savent qu'il n'y a pas plus Sénégalais que la Casamance. vous avez fait des choses extraordinaires. Ça va cette la Je ne savoir combien je suis ému et combien je suis satisfait de vous. Résistance bien résistée. Résistance bien résistée. Est-ce que vous savez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 nee leen d'accord ba pare. nee leen ba pare. mooy yéen ay triant ngeen. bii groupe bi leen d'accord waaw.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

On porte un projet pour le Sénégal on ne porte pas un projet pour Ziguinchor Voilà pour la de Voilà pour euh, euh, le Saloum Voilà pour le Sine Voilà pour le Bundu Voilà pour le Voilà pour le nangam on porte un projet pour le Sénégal et au-delà même pour l'Afrique d'accord ngeen est-ce que avez ngeen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

mu des nag mu des nag ma wax ak li des ci Sénégal je parle à tous les Sénégalais.